ci turu Cheikh Mamadou Mountakha Mamadou Gune xalifa général bu dul Gune bu fekkee ni nga sa maamoo bu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa mawlana muhammadin al-matin wa ala alihi wa sahbihi zawjudwani wa tamkin bokk julli yi tedd yi fi teew bokki tedd yi xam naa damay ubbil sunu kilifa di sunu mag bu baax di Cheikh Mahamadou Fadil di Cheikh Abdou Fadil waaye waxtaan bi nga xam ne moo bàyyeekoo ci Cheikh Mahamadou Mountakha Cheikh Mahamadou Fadil moo koy jot di tari kon dañ koy uggil rek ak fàttali ko tuuti ci bis bi ndax Cheikh Mahamadou Mountakha yàgg na ba mu ko dóoroon si jotaay bi ba mu doon sësi woon gépp ci yoon wi moo ko daa taxawee rek moom mii la jox ndigal nee ko taxawee jëpp jàkk joo xam ne war na ko ubbi moom la jox ndigal mu jiite ko kon bu fi toogee kon moo yor kàddu sëriñ bi kon ñu ngi ko siyaare ndax ni ma ko fi seere woon daaw rek baamtu la doon waaye alxuraan dañuy wax ne loo gis tur ya bari rek màggug lool la ci kon moom bokk na ci zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahjan nabiyil Mustafa taj tay ndax dafa jub rek yàlla mel ko ni mu ko melal mu mel ne waajuram foo ko gisee sa xel lañ ci kon ñi bokk Sëriñ Tuubaa ñëpp ko ñaanal bu yàgg ci loolu tàll ànd ak wér ndax ci yoon di nuyu ñi fi teew di bokk taalibe yi ci ndigalu Cheikh Mawlud di ko teg ci loxol Serigne Makhtar mi nga xam ne moom la yàlla def Cheikh Mawlud Mountakha teg ko liggéey bi ci loxol njëkk ñu nekk Serigne Touba mu ànd ak moom dem ba ca Cheikh Sidi Moussa. wax ko ne ko suñ waxtaan bi mii de doy na ma ci liggéey bi ndax day liggéey suñ suñ ba koy yitteem ak tostéef bu kaw rek moo tax ma yaakaar naa ci loolu Cheikh Sëñ Tass ànd ca moom rafetlu ko képp ku la loolu loolu kon nag moom itam ñu ngi ko li ñuy wax ku yokkul rek yaa wàññi liggéey lii nag am duggee ci loxo mu ànd ko taalibe yi ku fi ñëw ku ne xam-xam ne liggéey kenn du la kon ñu koy ñaanal ci barke Sëriñ Tuuba ndax jëmboon Sëriñ Tuuba ket fonkoon nañu lool ndax waaye moom pos bu posté ko dëgër ko am na jamono yoo xam ne kon dellu waaye dafa dëggal Sëriñ Tuuba rek ba yëg looloo a lii cër bi ko sëriñ bi jox léeg-léeg médaille la ci moom kon yàlla na ko yàgg taxaw te ànd ak ñoom di nuyu mbokk teel yi teew yëpp di nuyu ministre de santé Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne liggéey di ko yóbbante bu yoo ci président bi nga xam ne moom la fi teewal wax ji nag gàtt ndax li Abdoulaye wax léegi rek diggante sëriñ bi wax ndax sëriñ Touba. lii ñuy fàttaliku tey li julli géej gi liñ ci war a njëkk jànge mooy fonk bu Sëriñ Tuubaa fonk bi ndax barab bu mas a wàcc wala bu mas a dugg fu ne la muy njëkk def mooy kàbbar ñaari rakka julli kon loolu day jàngal taalibe yi ne leen képp koo xam ne aju na yaakaar ko xaw ma looy foyee waaye julli wu jëkk kon loolu mooy liñ ci war a njëkk jànge fii nag day wane rek suñu borom naka jekk ci ba àdduna soso ba léegi ni mu def diggam ak jaamu bi tëdd mooy bala laa jox xéewal faw mu natt li ñuy wax ne am fii tey ñaq Sëriñ Tuubaa bañ ko andee Saint-Louis ngir du ko war a àtte nam dale woon jëwriñam bi tëddee rek ca daaru naj wa daaru naj wa mu wax ne is yamkuru bika llaziina kafaru li yusbituuka aw la ñu wax ne lañ ko def bisna seroon waaye ñu ne kon àdduna ñu ne kon nañ xaat bakkanam ñu ne bu ñu ko defee te te indi ñu lu wér itam dana jëm ko suñu ñu ne kon nañ ko jënd génn leen googu nag ca ndar lañ ko doon ixraajuhu ila jilaadillahi wa naada fiiha uqusha shaytaani mu bàyyi ko ci bis bu mujj ci gàmmu wàcc fii ci Ndakaaru sëriñ bi nekkoon ci weeru koor ak si simis di bëgg jot sëriñ bi di waajal dog ni ko lislaam santaane fi mu toogee di wàcc ngir war a ko rek xalaat ndaw ñëw woo si ko ne ko wuyu mu mu agsi ñu dóor ko ci léegi lëndëm taqal la tiis boobu ngeen ngeen waaye sëriñ bi ni ngeen ko xamee nangu ñu nangu dogal suñu borom ba mu duggee ci biir néeg bi rek daa dee delloo lépp ci yàlla xam ne yàlla suñu borom rek mu daal di bi di tudd yàlla jànge ba sóotul baxtar ak sóotul ni ko waxee rek man ataani min an ci loolu nag waxe baytay du si yooyu ngeen yëg mooy idaa sakartu zaalika al-mabiitata wa zaalika al-amiira wa al-hubuutata taarat ila al-jihaadi bil-arwaahi nafsi walaakin zabta an al-maali na guddi ya tar na tar ci man koo xam ne saa su ma ko fàttalikoo rek sama xel day jug nee naa dem ngir métti métti waaye rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ku fàttali ko woon tey keroog ba Serigne Touba di bàyyi foofu ñu di ko dugal ci bato di ko génne nga xam ne wax na ne bi ma duggee ci gaal bi ci la ma suñu borom xamal fi ma nar a jëm ba am ko ñu tuuti tumuraanke gam nekkoon kenn wéttiliwu ko bu mbokk bu xarit bu taalibu jàmm waaye bu wéttili ko yàlla xam ne yàlla ku mu wéttili doo wéttili bi muy nekk ndar xam ngeen na ñu nañu woon bëgg bëggul ko defal intervention waaye sëñ bi neen bàyyi leen maag yàlla ndax moo ma gën xam moo ma gën a yërëm ci yéen bi mu liggéey ci gaal bi itam ndax fii dafa wax ne suñ borom daqal na ko boole pexe ak lool li nga xam ne bëggoon nañu ko defal ci li nga xam ne dugal nañ ci gaal yi rek naka mu tàbbi rek am ko ko xamal ne damaa bëggoon boo àggee nga bind benn lettre ndax fee nga jëm gouverneur ba fa nekk ku bees la jax soogut ak nit ñooñu bañ a sotti am xel kon boo ko bindee lettre wax ko ne ko damaa bëgg nga delloo ma sama réew dana ko nangu Sëriñ Tuubaa na mu sonal ma ci lool ba sama xel di xaw a xalaat nattal danaa dugg rek nee na su ma jëlee daa xale bi rek suñu borom xamal na ndax atatoo xaajataka ila maxluqin mislaka ndax da nga yëkkati say aajo di ko jëme ci ma xamee loolu nag daa delluwaat ci suñu borom yàlla képp moo mën a jël lor jëme ci liggéey moo a jël xéwal tabba bi dëgg la sama lépp delloo ko yàlla kon nag li ko ci suñu borom may bokkoon nañu jotaay bi. tey ku fàttaliku fa mu nekkoon ca Gabon wéetaayam ak fitnaal bi ñu ko daan fitnaal lépp luñ jàpp ne fitna la wala musiba wala loolu ñu yëkkati ko teg ko ci kawam waaye lépp mu di ko di mooy yàlla ci kanamam waaye mu wax ndegam xam naa ne malaayika yi nga xam ne ñooy kiraamal kaatibiin ñu ngi jàkkaarloo yéen te di ko kon waruñu ma yitteem ci koy def foofu la ko tëgg kon lii jasaa'ul ihsaan illal ihsaan rek la fépp fu mas a jaar fu rek suñu borom fay naka ci loo xam ne ba àdduna tuuti loolu loolu baax kon nag jataay bi bokkoon na ci jataay bi nga xam ne seen def ndax lii ngeen di fàttaliku tey bi ci géej gi booba ñëpp li ñu tiit jaaxle bàyyi lañ doon def lépp du ko seetal ba xam lu muy def am na ku ko laajoon ne ko booba noo noo bi ngay wàcc noo def mu ne ko damaa meloon na kuy ko ba ko lii nga def de xam nañ ne bu la neexoon ba jël si waat xam nañ ne jàmbaar dëgg nga waaye xam nañ ne ku am fit nga xam nañ ne ku am ngor kon la doon loolu doy na ci ku yaakaar sëñ Tuuba ngay fàttaliku loolu nga xam ne ndigalu suñu borom jagat ndigalu suñu borom jaraloon na ko ñu itam ñu fas yéene rek lépp loo xam ne sëriñ Tuuba digal nañu ñu góorgóorlu seen képp lay kàttan te xam ne lépp lu ñu digal njariñ rek cee nekk lépp loo xam ne tere na ko it loola nekk ndax tere suñu borom kon nag ñu jeexale foofu kàddu yi di sant bokki taalibe yëpp di leen gërëm ndax wax ji mënta dudd ndax ku toog ci sa garam kilifa da nga koy ubbi rek waaye lii kàddu yi moo koy def waaye ñu dolliwaat suñu rafet jot ak suñu yaakaar Sëriñ Tuubaa nekk na ca gànnaar wax suñu Aliou Sey ne ko Aliou wool ma fere yi ñi fi nekk ñi fi nekk mu woo ñëpp ñu daje mu ne ko damaa bëgg nga limal ma ci yéen yi am Sénégal bu suñu àll yu say rek mun na ko koo mun na sëriñ bi nag xam nga lu ma jubloo mun na ko déedéet mbàkke mun na ko yàlla suñu noonu damaa xamal ne balaa nabi di si déglu danañuy fekk ci Sénégal ci ak ci yéen li ma jublu ci wax leen ko nag mooy ma bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dégg ci àdduna bu ëllëgee ni ngeen di gisee li ngeen bëgg. daane fii ma ko waxee nag ba jotaay ba ba ñu àgg foofu kenn du faatu ci diggante. wax nañ ne ci jotaay ba am na koo xam ne dafa wéri ji woon bañ di ko xaar ba ñëpp ñu jàpp ne day faatu waaye ci dogalu suñu borom yàlla suñu borom ba ñibbi Sénégal a faatu kon nag sëñ Tuubaa la rek lépp lu ma dig lu ne bu ma yoroon kaasu café mu wóor ma lii kaasu café la la ma Sëriñ Tuubaa wax te tëggaguma ci sama bopp moom laa rek